Alvar baa nga yàgg fee leeru yaa nay njaay yàgg fee balay yàgg fee maam dundale bàyyi ko sa yàgg fee ñun ñoo ngi nii maam si sa

Yeah.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 lañuy may may yu dàkk way yàlla bu ñu saxoo zikar way te bàyyi mooy yàlla bu ñu saxoo zikar way te bàyyi mooy yàlla buur bi dañuy may may yu dàkk way bu ñu saxoo zikar way te bàyyi mooy yàlla buur bi dañuy may may yu dàkk way te bàyyi mooy yàlla bu ñu saxoo zikar way te bàyyi mooy rabu dañuy joor cër ya gën a rëy bu ñu saxoo zikar way te bàyyi mooy yàlla buur bi dañuy may may yu daa ko way la ilaha illallah huwa akbar la buur bi dañuy maye mayu gàkk waye bi xurmatil qur'aan لبور بدني مي ويوغا كوي ونوسا خوزيكار ويتباي مي ونوسا خوزيكار ويتباي مي لبور بدني مي تري غنري ونوسا خوزيكار ويتباي مي يا لبور بدني مي dak way asidañi may may yu dak way labul asidañi may may yu gën a rëy labul asidañi may jëri ya gën a rëy سنني جو شريا غنري أمة القرآن مني أخبري ما أنا وسر لي بلي بقل جري بابا إني أقبلي أنا ويتمو وسر لي بلي بنيو سخوزك ويتباي موي woy yàlla buur bi dañuy may may yu dàq woye ñu soxoo si kër te bàyyi may may yu dàq woye may may yu dàq woye yàlla buur bi dañuy may may yu dàkk way yàlla buur bi dañuy may may yu dàkk way yàlla buur bi dañuy may may yu dàkk way la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa Mbàkke dangay bay faal borom yërmande fa la ilaha illallah fa ko sombake dangay bay faal borom yar bay faal borom yërmande ay ko sombake mam cerno dala gërëm danay gërëm la ay ko sombake dala gërëm sense gërëm la ay ko sombake dangay bay faal dundal teewet loo fa la ilaha illa la ko sombake dangay bayi faal borom yërmande ay ko sombake yanda njaay dala gërëm yanda gërëm la ay ko sombake yanda njaay dala gërëm yanda gërëm la ay ko sombake dangay bayi faal yaa du fema fa la ilaha illa la Mbàkke dangay bàyyi faal borom yërmande ku sopp bàyyi ko sa loxo nel loxo loxo nel ni sa loxo loxo sopp bàyyi ko sa loxo loxo nel ni sa loxo loxo sopp bàyyi ko sa loxo loxo yaay suñu baabu laay yaay suñu baabu laay koso asulo bay koso loxo loxo nel ni sa loxo loxo sobu bay koso loxo loxo nel ni sa loxo loxo yaanay ibnu sëriñ see loxo ni sa loxo loxo bay koso bay koso bay koso bay koso bay koso yaay suñu baabu laay asulo la ilaha illallah ah, illallah la ilaha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

وسلم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 Hello. إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا محمد رسول الله لا إله إلا لا لا إله إلا لا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا الله hello.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

rasulullah solo la rasulullah yàlla sant na xaadim rasulullah yàlla sant na xaadim rasulullah yàlla sant na xaadim rasulullah yàlla sant na xaadim rasulullah yonen sant na xaadim rasulullah yonen sant na xaadim rasulullah Cerno gërëm na xaadim rasulullah Cerno gërëm na xaadim rasulullah muhammadun rasulullah ñun de sant nu sant nañ ñun de sant nu sant nañ yàlla sant na sant na nu gërëm na xaadim rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah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 Ceerno gërëm na Xaadim Rasulullah ñun de sant nañu Xaadim Rasulullah Bye. Bora, bora, bora. may sa maam bay ko doon. laay la laay yëngal doon. muhammadun salla alayhi illah. laay la laay yëngal doon. laal waa sëppi wa man wala. laay la laay yëngal doon. maam bay sa maam. jur may sa maam bay ko doon. قد تعالى فكرت ربنا كثيرا اي خلق ملامي ربك تفعل من فكرت راوي فكرا كثيرا اي خلق ملامي borom daaru borom daaru xaadir al murid oh. moom lu ko soob lay def ci ab murid واخي من سنت بالفضل اسم التوحيد بعد صلاتنا على الويد تسأل خير خلق الله أسابايا كتخبيا وبنت ما لم تقل هو المدمدنا وما lu mu doon yaa su doon kërum saxoo di yaa la xayrul wara waa makkatul majaale waaye la yóbbu Muhammadul Makiyo dellu si yóbbu Muhammadul Makiyo ñu defi bàyyi sunu maam Cerno Ibrahima

dëgg ci jëfal dëgg. Cheikh Bamba rek kay dëgg. murit dafay dëgg. teg ci jëfal. waahidu Bamba rek kay dëgg. allahu murit dafay dëgg. dëgg ci jëfal dëgg. Cheikh Bamba rek kay dëgg. murit dafay dëgg. allahu waahidu. allahu murit dafay dëgg. dëgg ci jëfal dëgg. Cheikh Bamba rek kay dëgg. allahu waahidu. jëfal dëgg Cheikh Bamba rek kay dëgg allahu waahidun allahu murid borom daaru yal na fi yàgg te ànd ak wér gay borom daaru yal na fi yàgg te ànd ak wér Mbàkke yal na borom saxal ci dooley maam Cerno Ibrahima daamal daaru ndokk yàlla ba yàlla boole ak yow ndax donte ne ay xale lañ ci sa kanam waaye ñu xam te xàmmee leen ñu ngi ñaan ci doole Serigne Touba ànd gi ànd ak yow yàlla ko yàlla sama borom ful ba mu doon ay téeméeri at ak lu topp ci doole Serigne Touba jéego boo ci dox yàlla na ci daje dëgg dëgg dëgg ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Ndaamal Daaru barke Cheikhul Khadim ñu ngi tubaat baax tey jégalu. waaw dañu bëgg kenn ku nekk rek jërëjëf yàlla suñu borom. jërëjëf yàlla suñu borom. jërëjëf yàlla suñu borom. jërëjëf yàlla suñu borom. jërëjëf yàlla suñu borom. si ndigalu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. si ndigalu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. di ko jaarale si Serigne Koso Mbacke Gaïndé Borom Daal. di ko jaarale si Serigne Koso Mbacke Gaïndé Borom Daal. waaw dañuy sant yàlla bu wér. am gros plan. dañuy sant yàlla bu wér. dañuy sant suñu borom bu wér-wér dañuy santaat suñu borom bu wér-wér damay wax ne ñëpp dañuy sant suñu borom ñi fi teew sant suñu borom ba fi ñu waaye ñun si biir cant boobu dañoo suñu borom ni ko maam borom waxee ni bu ñu boole Serigne Kosso Mbacke gën a borom loolu dañuy ziar Serigne Bara Serigne Bara Diakhaté ñu di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonente mu tedd santati Serigne Touba Xaadimu Rasuul bu wér di ñaanal Serigne Bassirou Mbacke Anta Niang xalifa borom Daaru Muxti mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal Serigne Baara Jaxate ñi nga xamante ni moom Serigne ñoo bokk lépp moom rek bu ñu ko tuddoon day doon waaye xam naa ni moom sax bu ñu ko tuddoon mu ne tudd leen gaynde borom daaru ndox ñoom seen i mbir lenn la du kon ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ko ñaanal ndey suñu ndeyu daara yi nekk si kër yëpp dinañ ñaan suñu borom yàggal leen ñu ànd ak wér di ñaanal nag gaynde borom daaru mu yàgg fi loolu te li may wax nag yéen mu gën a xam li may wax yéen a gën a xam fuufu. ndax nag ndox li nga xamante ni mbokku taale bi bari na fi ñoo xamante ni suñu borom tawfeex buñ ko amee ba mën na yëkkati am na ñoo xamante ni bu ñu xamoon jëlee suñu borom defal si fa ñu jóge ba mën a ñëw daaru al muxti teg fa seen tànk si ndimbalu Serigne Kosso Mbacké borom daaru loolu bu la ko suñu borom fayee addunaa bi si biir say sa ñi nga bokkal ñëpp suñu borom mel na na si pexe ndax suuf soosee li suñu borom wax kon ñun ñii ñëpp fa ñu nekkoon sëriñ bi ñu ñu tàggat ba yóbbu ñu foofu ñu teg ko suñu tànk loolu rek war naa tax ñu sant waxuma loolu mu dimbaliwaat bi ñu ci ndimbalu Serigne Saliou Mbacké moog Serigne Bara Diakhaté nii ñu nekkoon fa doon jàng tey jàngale ba tey ñu mën Serigne Saliou jox leen pàkk bii nga xam bii mun ngaa wax ni fii Serigne Saliou jaar na fi Serigne Saliou dugg na fi ak ay tànkam mu jox leen ko ñu ñëw di àndandoo fii di màggal bis bi Serigne Touba waxoon ne bu ñëwatee da ngeen ñëw fii santale ma yàlla suñu borom da ngeen ma santale yàlla suñu borom ko fii kon ñun ndog bi ñu bokkee si ñi nga xamante ni dañoo war a ñëw jàppale Serigne Touba si sant gi ñuy santale yàlla suñu borom loolu te nag Serigne bi doon wax sànq loo xamante ni jàpp naa ne bi ñu ko waxee ñëpp suñu yaram suñu garaw yaram taxaw muy waxtu wi la borom jaar am ci jóge woon ndar di tane tane bi di jaar ci and bu fott dara ngir lan ndigal li nga xamante mom la ko sëriñ bi joxoon ta ba mu deme mu wane gaynde gaynde gu wer bañ nan ki bu fekkante ni du ki ñi wara jëli kon ki ki ñi wara a jëli war nañ ko waajal ba tax ñu ñu def contingent bu ne laataa borom daaru am di yegg si ka ko yabal ngir di leen ko fekk foofu ndax kii bu ñu ko waajal amaana buy ñëw si ñun baax nga xam ni ndigal loolee waxtu wii la borom daaru al muuti doon jaar si àll àll bu fat dara doon guy ji sëriñ doon ko yóbbul li nga xam ne moom la jëlee ndax ba tax na ñun ndox damay wax ne wóor na sëriñ Tuubaa fa gën a ligg si ma si Tuubaa laa fa gën a ligg si si man fii moom gën wallaahi la si parce que li may wax lu may dund la lu gëm la ma ne fa gën a luxe si biir Touba fépp a baax fépp a taw feex ñoom ñun suñ waaye fii la ñu sëriñ bi ndax xol mooy bëgg xol te suñu def na ko noppi wallaahi la si dara mënul ci ñoo bégloo luy jëm si luy jëm si àdduna wala nangam ak sàngam mënuñoo bégloo ndax fi ñu sëriñ bi def bañ koy yëg ñun biir nañu leneen mënu faa yokk xanaa lu fa yokk moom moo ko def waaye du leneen wallaahi azim bu jëm misi ay gileem di ko taxawal fii ñun li si sëriñ bi ko war a te li may wax kenn ku si nekk foofee bi naan lu nekk fu ay jëmm ko fa def waaye man damay wax ne sëriñ bi ñun di ñëw fii rek di ko fekk fii di ànd ak di màggal ak ni muy màggalee ndax bari na dugg na si dëkk am na ñoo xam waxtu yi xamuñu ne sax yaa ngi si guddi maa dem waaye sëriñ bi day dàq waxtu wu ne ak la muy làmbatuwul waxtu la mu laaj mu jiitu si te bu si jiitu ba muy wootee moom am na fu mu ne ndax boo ko xoolee jëmm ji am na loo xam sax te gi ko may waaye ñun biir nañu ba ñuy jógee fii ñëw lépp muy yëg ñun mënuñu ko sax yëg wallaahi daal kon nañu góorgóorluwaat nañu takkuwaat te jëmm seen tubaab. te ñu ngi góorgóorlu góorgóorlu baax bu wér nga xam ne sëriñ bi wallaahi asim dëju si ndimbal la nekk si ndimbal yi si la si la nekk si ndimbal yi càpp si la nekk bu dee bëccëg si ndimbal yi la kon nañu takkaat laxasaay li may wax dama ko yeggee nañ leen takkaat laxasaay pour góorgóorlu wallaahi asim nañ takkaat laxasaay pour wér pour góorgóorlu jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. man li may wax rek mooy ñaari baat la baat bi si njëkk mooy ñu ñaan seen ñun ñett nañu ñaanal seen baax rek joxate ak seen kosu Mbàkke seen ànd bi ñu ànd bi ñu yor seen Touba ci barab bii ñu ne nga xam ne Serigne Saliou Mbacke moo doxal boppam. ci barabam ñëw ba fii rëddal ko boppam tànk si tànk boppam jox suñ baara jaxate barab bii foog suñ ko sañu nekk kon ko képp kuy taal bi te yow da ngaa bàyyi da nga da nga da nga bëgg sëriñ ko sax si sa xol fépp fu mu ne fu ne da ngaa war a fekk foofu barab bi waroon naa fees dell waroon naa fees dell fii fi am soxna ku ne buñ la ko mayee day bàyyi këram ñëw sa kër lu waral loolu mbëggeel bi ñu woote ay mbokk lañ ko dénk kon kooku nangul na la ñu nag seen kosu Mbàkke bi ñu la ñu am seen kosu Mbàkke bi ñu la ñu am buñ jébaloo lan lañ wax atantul nas dégg dégg nañu suñu bopp tey ak ëllëg muy suñu bunt Sëriñ Tuubaa bu ñu nekk bu ñu demee Ndakaaru lan la def sëriñ bi da dem ci barabam ñun kenn ku ci nekk dem ci barabam sànq rek maa ngi wax mbokk taalibe bu ñëwee fii si Touba nga xam ne li waral ñaanal sëñ koso di ko topp ñu ñuy xamal yoon bi muy sëñ Touba lan lañ war a def toog ci keppaar bu koy wax faaw ñu yeggal mu moom dañoo naxul dañoo naxul ay mbokk kese lañ fi am ay kilifa jàpp lañ fi am sëriñ bi xam loolu bu ñu génnoon fii léegi fii fi mën a dugg bari na sëriñ bi xam moom dañoo naxu moom kon ànd ak ñun di di sant sëriñ Tuubaa di santale sëriñ Tuubaa yàlla si bisam bari na foo xam tey boo demee te nga ne ñu fatu amaana ñu nekk seen mbir di jaamu yàlla nekk seen mbir waaye moom ngay ñëw ànd ko ñun maanaam bis bi di ko niinal ba ñuy tàmbalee safar ba ni bis bi di weesoo ba safar bi di màgg di romb ba gàmm gi ñew serigne bi du bàyyi dara lepp lu ñi ñuy jariñ àdduna ak alaaxira sëriñ bi dañ ci teg lepp lu ñi jël la la aduna ak alaaxira serigne bi dañ ci teg kon li ñu wara def baati maa ngi tuut sax si jàpp dog dog mo dog kat waye waaye ngeen gor gor nañ leen pakkat la nga say nañ leen gën a jaajuwaat àdduna bi dara aduna bi du dara fi toog léegi-léegi nga am 50 ans daanaka 60 ans segam tubaab bi nga am mu ne retraite la kon ñun ñi nga am ay ndaw lañ war a jaamu yàlla wala liggéey yàlla wala ànd ak sëriñ bi liggéeyal sëriñ Tuubaa si wet bu ne ni ko sëriñ bi di waxee nga xam ni foo nekk yow ambassadeur su sëriñ Tuubaa nga war a doon si yar ak teggin ak xam-xam ak bëgg lu baax ak di dund yàlla ak bëgg yàlla te yàlla rek tax loolu nañ leen ko bàyyi xel bu baax. nan leen gën a takkaat laxasaay te gën a jàmbaar sëriñ bi te jëm sëriñ Tuubaa tax ndax moom ngay wax nañu mu ne léegi rek laa koy wax jenn yàlla ma ne ko sëriñ bi bu demee ba ñuy ba ñuy yaatal ni contestant yi nga xamante ni sëriñ bi ba ñuy ñëw fii Dakar moom mii bokkoon na si ñu àndoon moom si liggéey boobee loolee bëgg ñoo dimbali képp moo ko waral waaye mënoon nañu ko sax bañ a wax bu demee ba naan bu liggéey bi su fekkoon te mat matu sax buy dem di dellu si waat di ko matal dina ko ndax mission la bu Serigne Touba tamponné ba noppi kon ñun kenn ku nekk da ngaa war a xam ni Serigne bi li nga ko war a dimbalee si li ko war a dimbalee mooy yow sa jëmm ji dafa war a si sa jëmm ji dafa war a dafa mar war a man am yar am teggin bëgg yàlla te jëmmi yàlla képp tax nga dox si yàlla nag te doo arrêt bañ a gestu Serigne bi loolu lañu tàggat guddeeg bëccëg si loolu lañu tàggat nañ leen si góorgóorlu nañ leen si taxaw bu ñu bu mu am xarit bu mu am doom bu mu am soxna bu mu am jëkk borom bu mu am dara yàlla dafa fiir yàlla àndul ak dara jiitalal yàlla seen lépp bañ koo rax ak dara bu ñu ko defee wóor na Serigne Touba li bu bëgg suñu leen ko am te wallaahi azim bëgg ñëw na li naan li naan li naan di nga bëgg dimbali nit ki ba da ngay wàcc sax ba suuf ndax lii sax boo koy nàmpal di nga def mu ne ngir bëgg dimbali ngir mu mën a mu mën a mu mën a def dara rawatina nag. wàllu gu yàlla bu mat sëkk boo xamante ni ñun sax mënuñu ko xam ñun sax mu mënuñu ko xam kon si biir lool waxtaan bi yëpp santaat suñu borom képp lañ si tudd si leneen ak sëriñ moom di wax si moom daanaka day doon day doon tawfeex si biir tawfeex képp tawfeex si biir tawfeex képp lay doon ñu ngi tubaat bu baax di jégul di santaat mbokk tànn bi yëpp rawatina ñeen ñi nga xamante yéen a ñëw di jëmmal ndax sëriñ bu fekkoon ni gën jëmm rek moo fi teew di ko taxawal jàpp naa ni dina jàpp ñëpp de waaye ka ko teewal fii dina xam ni kii ànd bi mu ànd moom ñor na kon na xam ne yéen ñi teew fii ànd bi ngeen ànd ak sëriñ ñor moo tax ngeen bàyyi lépp ñëw teew te bu ngeen fi ñëwee sëriñ bi wanu leen boppam wanu leen lii wanu leen lële bu ko neexoon fàttu si bi bàyyi ñu nekk si li war a nekk ba heure bi jot mu ñaanal te boobaa li nga war si li ñu waraloon moom dañ ko war a def sàkkoon duma laa nag ñu toogandoo di santal sant sant suñu borom santal am na di sant suñu borom bàyyeewu ko ak kenn saa su ne mu ngi nemme saa su ne mu ngi xool kenn ku ne sa doxin nga wax ko nga ñàkk ku si ne mu lay xool bët bi mu war a xool seen ak taalibe bàyyiwul sans exception ñëpp muy góor di jigéen kon ndox sëriñ bi bu amee sëriñ bi mel noonu nañ leen si gën a takkaat laxasaay nañ leen gën a rokkantiwaat laxasaay bu wér jéego bu ñu doxoon nañ leen ko yokk jéego bu ñu doxoon pourcentage bu mu doonoon nañ ko gën a yokk te jëmmi sëriñ bi tax bu ñu dara dëppuloo bu ñu dara delloo ginnaaw bu ñu dara yokkatloo ndax kat defal nañu lépp sëriñ bi defal nañu lépp te jëmmi sëriñ Tuubaa rek tax Mbacke ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu déwén. amiin yaa rabbal aalamiin yàgg fi yàgg loolu waaw bokk si keneen yi nga xam ne dañuy liggéeyal si dañuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa si yoonam bi wala nga si kon li may wax sànq rek jenn ma ne ko Sëriñ Saliou si boppam moom mi nga xamante ni moo xam li nga xamante ni moom la ko suñu borom boole kenn mu xam kenn ku nekk mu xam sa capacité bi nga xam moom nga war a jël si xam-xam ak ni mu la war a jàngale ak ni mu war a fexee ko jox la jox la li mu lay jàngal nga mën koo capté yéen ñii jëlal def leen ay kenam ngeen ko ngeen ngeen ko koy defal. Serigne Sall du tàn du tànn du du tànnantu bu leen tànnee boole leen si kenn yi ko doon defal lool am na lu ko waral am na lu ko waral bi nga bokkee si borom daar al am cër bu wér boo xamante ni ñi am cër si yàlla yëpp xam nañ kon Mbacke yàlla nañ fi yàgg loolu tuwér kàddu gi nag buñ si wax rek bu si ëpp na nga xam ni sant rek moo ko waral sant am na ñoom bu ñuy sant ñu ngay ñu ngay ñu ngay jugat amaana am na ñoom bu sant ñu ngay ñu ngay ree amaana am na ñoom bu ñuy sant ñu ngay jooy am na ñoo xamante amaana bu ñuy sant ñu ngi yëg leneen te mënuñu ko wax kenn loolu képp moo tax ñu génnee kàddu bi te xam nañ ni kenn ku nekk si mbooloon bu ñu la joxoon kàddu bi nga matale ko waaye sëriñ bi ndigal li ñu jox ñu war koo yàggal képp moto ñu war koo génnee ñëpp di tuub nag lépp loo xam nit waroon nga fi génnee mu nekk njariñ te yàlla dogal nga jël ko muy ngànt nga kay tuub